ñi nga xam ni ñoom la yàlla dénk alal ci réew mi nekk Sénégal rikk waay rikk waay ñu ngi leen di alerter ñu ngi leen di dénk ngir jëmmi yàlla ngeen xool seen bopp ragal leen yàlla dellu leen ci yàlla alal jii leen yàlla denk moomu leen ko denk la ko yàlla def ci yéen sunu borom wax na ni mathalu lasina yunfiquuna amwaalum fi sabilillah kamasal habbatin ambatat sab asanabil wa fii kulli sumbulatin mi'ati habba ñi jël seen alal dépassé ko ci yoonu yàlla te yàlla rekk tax sunu borom nee na danaa leen fulal seen alal jooja mel ni gubu dugub mel ni fépp dugub wu ñu jiwoon féppoo màgg dem ba nekk juróom-ñaari gub gub yooyu gubu ci nekk téeméeri fépp nekk ca loolu mbokk yi barkeel na te yàlla sax yimul ci loolu dafa wax ne danaa ko gën a fulaat sax mu ëpp loolu yu daa la wax danaa ko gën a fulaat kon yéen borom alal yi nga xam ni yéen yàlla dénk alal tabaski yu jub si ngir jëm yàlla génn leen seen alal yi ci banque yi ngeen dimbali ci néew doole yi at mii ñu ne muy atu corona képp koo xam ni jàppale nga nit ñi te yàlla tax say rakkaa jëratul muy bari maa ko wax yéen ay seg ngeen war a naafila yéen boru alal yi ngir jëmm yàlla naafila leen ay seg ndax mënoo nekk ci koñ am alal ju bari jël ay xar di ko partager ci ñoo xam ne ñoo la ëpple wala ñoo yow yéen a tolloole seen alal jooju jënd leen ci ay xar xari cinquante mille baax na xari quatre-vingt-dix mille baax na xari cent mille baax na ngeen jël ko koñ ya ngeen dëkk ngeen tëdd ba guddi ngeen yebal seeni safoor wàcce ko ci ay kër yoo xam ne leer na leen ni ñii kat soxla nañ ko te ñu ko am te fu ne ko fay wëri waaye ñu ko am leer na ma ne ren dee bari ñu lu tabaski léegi rek am na ñu mën a waxtaan la ñoo xam ne kenn ku ci nee nga heure bii daaw de denc naa sama xaalis tabaski waaye tey jii ma wax ak yo yuruma dara kon mbokk yi yéen yàlla dénk occasion ngi ko tijji dugg ci insha allahu rabbi loo liggéeyal yàlla yàlla mën na ko nangu waaye nag ah sunu borom day waxam ne ni ñi nga xam ne jihaat ci seen alal yi ak seen jëmm yi jihaat ci jëmm nag bëreetul ndax fii daanaka wax dëgg sax nit ñi booy wax dëgg sax dana mere waaye nag kon ngeen jihaat seen alal yi te itam rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wala bayun an zikrillah yàlla nee am na ñoo xam ne dara nga la ju leen am na ñoo xam ne dara pare ju leen am na ñoo xam ne faale wuñu dara lu bëgg xanaa ngërëmal yàlla kon yéen borom alal yi fexe leen ba wokk ci ñooñu laa tulhiihim tijaara wala bay la wax faalewun commerce faalewun alal faalewun dara li ñu am dañ koy jël def ko ci yoon yàlla def ci yoon yàlla pasel tabaski gi ñëw ngeen jël seen alal ji jënde ko ay xar jox ko ay safoor guddi ñu yóbbu ko ci nga xam ne ñoo ko soxla ci seen koñ ak seen quartier yi ak seen mbokk yi seen loxo jot seen ginnaaw ak ku ngeen yaakaar sax ni bu ngeen ko joxam xar na ko te bàyyi tiitaru bi bàyyi wanewu bi di dimbalee di seen biir yéen borom alal yi ak di jël ay xar di ko jox ñoo xam ni ñoo la ko ëppale loolu mbokk yi dara jëru ko nañu ko daw nañu ko moyu ndax amul sens am na it ñoo xam ne fii lañu jël ay xar ci tuubaa di koy yóbbu ba Dakar ci ñoo xam ne ñoo la ëppale gis naa ko ba tàyyi ñoo xam ne ñoo la ëppale fuuf bu dee ci suñu mbokk yi ñi nga xam ne ay sëriñ lan ñu gëm sëñ Touba te toppan seen maam yi yéen itam maa leen di alerté ngir jëm yàlla toppawul leen àddina bu leen bokk ci as baatu ashabtum tayibaatukum fi xayaatikum dunia yàlla nee na bu leen bokk ci ñi nga xam ne ëllëg bu ñu taxaw yomal xiyaam sunu borom nii waaye lu ngeen ma jëfal ngeen ni ñun daal wax dëgg yàlla àddina man nekkee suñuy taalibe ñoon doon jox ñu a noos léegi nag alal jaa ngi wan ak ñun ci àddina waaye fii amuñ fi dara bu leen bokk ci ñoo ñeen sëriñ si fexe leen ba seen taalibe yi bàyyi mag yi ngeen yoroon nga xam ni dañoo toppoon seen bàyyi ay 1900 la doon topp seen bàyyi ba gisatuñ leen ñu leen ni dall yéen ñii kon ñooñu bu fekkee yàlla dogal na ñooñu amuñu dara loo xam ni man nañu koo tëbaskee ngir jëmmi yàlla yéen yéen a war a jël ci seen jiba jël ci seen alal jox magi taaliba yooyu topp seen bàyyi ruuj bu mësa am dem nañ ca gor bu mu mësa am dem nañ ca foo leen fekk seen bàyyi dong leen gëmal ak seen maam yi kon nag ñooñu da ngeen leen war a jàppale ngir jëmmi yàlla waaye bu leen leen jël mukk di leen foye bu ñu ñëwee seen kër yi duñ leen mën a gis ngeen di jëli alal di ko jox ay ñoo xam ni nguuru àdduna doo nga leen boole ak alali àdduna waaye mosuñu leen a gëm mosu leen a topp mosuñoo bëgg seexul xadim mosuñoo bëgg a ñu baax ci réew mi kon nag mbokk yi lii laa amal lu leen di dénk yéen borom alal yi ak yéen sëriñ su ndaw si génn leen seen alal yi def ko ci ñi nga xam ne ñoo toppan seen waajur yi yàlla tax magi taaliba mu ne dama wax ne ab sëriñ la magum taaliba mu dëggal yàgg a topp sëriñam bu ñaanee suñu borom nangu yéen sëriñ su ndaw si léegi da ngeen di tëñ seen taaliba yi bàyyi magi topp nit yi ndakaaru yeeg borom alal yi nga xam ni tekkiwuñu dara gëmuñu leen seeni mbut dong lay solli loolu laa bëgg na leeral xam naa ni maa ngi jéglu baax a baax a baax ci seen seen bii di 24actu yi